الشيخ سراقة مفكر تاني آه، ما نعم يعني في يقلو نيو نيو نيو كما سي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سيد واو ني يغلي غلو ني باري باري ني باري ني لين دخال يا نيو مات الشيخ سراقة ني لي زياري وباخ ما شاء الله ديال دالتي مسابقه تفسير القران الكريم دي نان يعني يالا آه، ديفال ني التوفيق ديفال لينكو ديفال كيب كو خامني ياغي يعني بوك مسابقه بي الشيخ سراقة سما نجال بينو لاج اك يو موي اي بي ني بغا واخ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بظنين لجي ايه دي lañ bëgg benn aaya bi ci nekk nga wax ñu maanaa bi te tamit firil ñu euh, maani kalimaat yi nga xam ni moom moo ci euh, moo ñëw ci aaya bi euh, ñu ngay déglu Cheikh Souraqa léegi damay sukkandiku ci téere alquran wala déet man xaw ma li nga wax ni Cheikh Soraqa ba mu sukkandiku léegi yow kay da ngay sukkandiku sa xifz rek ak sa fahmu yow kay bu la benn téere jege bu la téere jege bu la téléphone jege bu la daara jege lépp loo loo luy internet wala wala téere rek bu mu la jege yow ak sa fahmu rek ngay dem. majara tubbaan comme majmuatu chamsé ni mu amee biddiw yu topp jant bi am biddiw yoo xam ni dañoo ne ci majara labbaan mu ñu voie électrique. biddiw yi nga xam ne dañuy feeñ nga leen di gis bët ak biti yi nga xam ne mënu leen gis ak bët xam-xamu science saxal loolu suñu borom junjoon ko ni fala uqsimu maa ngi giñ bil xunnasi ci biddiw yi nga xam ni dañuy feeñ ak a nëbbu waaye aljawaar yi di daw ci asamaan si di wër galaxie ba nga xam ne moom lañuy wër boole koog alkunnas di setal bërëb yi nga xam ni moom la ñuy jaar ci muzannabaat yi nga xam ne ñooy wàccee ci asamaan si waroon a mi asamaan dafa am ay muzannabaat comme ni ko xam-xam science jàngale muy yoo xam ni dañuy wàcc di jugee ci kaw asamaan si di romb euh, tabaxaat yi ñuy romb ci tabaxaat jawwiye yi biddiw ya fa nekk ak gaz ya ñu dégagé ñuy seeyal muzannabaat yooyu ba yàlla du yegsil loolu ci kaw suuf loolu bokk ci injaazaat ilmi yi nga xam ne ulama u science génne nañ ko ci jamono yu mujj yi wala li suñu borom ni maa ngi giñ ci guddi nag isa afas bu demee ba kukk lëndëm këriis waaye wa subhi maa ngi ginjaale it ci suba isa te nafas bu demee ba leeraayam daal di jolli lii daal moom mooy dégg-dégg bu gën a gàtt bi nga xam ne am nañ ko ci waaw Cheikh Soraqa euh, ba léegi aaya bi firi woo li liñ bëgg lépp nga firi ko ayaat yi xam nga dama ni fala yàlla dafa ni fala uqsimu bil xunnas al jawaari al kunnas wal layli ida asas والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بضنين maanaam foofu laa yem maanaam foofu laa beneen bi mooy fala walleyli walleyli ida as as الكنس من الأخصخة موقع الكنس آه، كان سيكنس معنى موي لو خمني دفاي دفاي بال واي اسكا الكنس الكنس في كسار دي في سورة التكوير اسكا يال كنس جبل مفسروني أه سين ووتي كي الكنس الكنس نيول تي كنس luy bale comme ni ni ko ni ko comme ni ko waxe ni légui nak bu fekkente ni am mufassir bu ko wax ndaxte gisuma mufassiru ni c'est vrai que ni Qur'an al Qur'an léeg aaya day fii ay maani yu bari waaye comme tafsir bii nga wax nii xun al kunnas nga xam day bale loolu bëggoon naa ci mufassiru yi nga xam ni dañuy ictimaad ci seen kutub bëggoon naa nga wax ci kenn koo xam ne moo ko firee nii bi ak tamit as-as lëndëm parce que as-as euh, ci luxal arabi nekkul lu dem ba lëndëm looloo day day naa nga indi ci lu leer beneen bi ida as-as léegi nee nga wala léegi ida as-as léegi après xam nga nee nga giñ yàlla ci lañ lay moo tax man la fala uqsimu bil xunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بضنين لولو داغي نيو با فوف مانام نيواتال دا كي تفسير كي مو واخال واخو مفسر باسكو باليك تفسير دي آه، ديسنا ديسنا آه، ديسنا مانام ديسنا ديسنا ديسنا مانام نيوات سي بو باخا باخا waaw kay bu fekkente ni ci bu dee mu fasirun yu njëkk yi moom euh, sukkandiku maag ci ñoom ci ci ci dégginu science bi mais li may dégginu science bii nii maa ngi ko toppee woon ci benn doc mu fasir ma docteur Zaghloul ci al i'jaz ilmi fi tafsir al quran waaw kay boobu majalla ci moom laa toppee woon wax jooju boo defee mu doon yaatal ci biddiw yi nga xam ne ñoo nekk ci asamaan si bi leeral te yi bokk ci majara labbaani yi bokk ci majmua shamsiya comme ay zuhal ak yi ni suñu borom ba muy junj di waat ci falaa uqsimu bil xunnas biddiw yooyu la ci jublu biddiw yooyu ne daf ci yoo xam ne dañuy liggéey liggéey bu toll ni suñu borom daf leen a sànni ci jaww ji ñu nekk ay biddiw protecteur ba mu zënnabaat yi nga xam ni niyazik yi nga xam ne ñu ngi jugee ci kaw di wàcc euh, li ñu tuddee yi wàcc di jugee ci asamaan si biddiw yooyu dañ leen di seey seeyal léeg-léeg lil ard loolu nag maako ngi woon ci benn docteur bu ñuy wax docteur Zaghloul Najjar ci tafsiram boo xam ni mi ngi ko tuddee woon al i'jaz al ilmi fi tafsir al quran ok euh, yaakaar naa ci wolof du ci mufassirun yi nga xam ni nag ñu njëkk ñi la boobu ci aspect scientifique bi nga xam ne moo ñëw ci bi bidiw yi moom lañ ko doon toppee laa kul xaal mais bu dee mufassiruna yi moom gisuma ci kenn koo xam ni jëmee na wax ji ci firi bu demee noonu mais ñoom ñu ngi jëm ci ay di misaal biddiw yi daw comme ay kéwél yoo xam ni ñu ngi daw ci àll yi ah, waaw ah wax dama yaakaar danga ma firiloo baat yi rek ak maanaa yi suñu borom dafa giñ ci yii legi jawabul qasam bi nak ak sey guñ ci ndax yaakaar na est ce bi nga may laaj aaya bi ag nga ci jawaabu jawabu qasam joju pour ñu pour ñu pour ñu wax ci yaakaar na lu bokkon ma degut lolu bok dama yaakaar ne ma laaj baat yoy fi nga ci yam rek ma ñew yam fofu waye dafa dañu wara continuer dañuy indi ni li suñu borom da ko guñ ba fi legi jawabul qasam ji moya ah, li ma doon waat innahu la xaw karim ak lo tax ma fi nga taxaw rek waa Cheikh Souraka xam nga premièrement comme Zaghloul Najaa xam naa ko jàmbaara lool ci wàllu ijaaz ilmi wante ijaaz ilmi nekkul daraja ula fi tafsir alquran karim ndax ijaaz ilmi dafay wuuteelu bare bare bare ci tafsir alquran karim maanaam tafsir alquran tafsir yoo xam mooy tafsir shar'i alfahm nabawi fahmu sahaba seen seen tafsir yooyu nga xam ne day ñëw di wàcc ba ci mufassirun yi فهم وو نون موم لا موم لا جوبو سي تفسير القران تا امه بي تامي لولو جوبو لي نك اعجاز علمي ليك ليك داي نيو ريك مو ام فني دافا مو ام فمي موافقات اك واي اعجاز علمي لي سي باري با دافاي دان مان توب نا اعجاز علمي تول تفسير وانت دا ngay دا ngay غاورير دا ngay غاورير لو صح بارينا زغول نجار بل لو فمي ووتيك بروم خام خام لو باري باري باري لو باري صح بارينا لول فمي تفسير تفسير واحد دا ngay غيسني تفسير بوب نو سلما دا فا ووتيك ا آه، آه، تفسير بيغا خاني موي دا فوتيك بونو خام خام واي داغي غيس ني ميم سي الواقع داي ووتيك داي ووتيك واقع بار لوم سي ني موتاخ بوما تفسير داني نييو سي تفسير ني خاني موم لاكو صحابه تفسير نون لاكو آه، تابعين الصحابه نون نكو تفسير سي تابعين اتباع التابعين جيلكو نون خام نا ليغي القن نص واخ nga legi ام سي صحابه سي تابعين ام نكو فيري لولو ام القن am nañu ko firee dugg dugg maanaam maanaam euh, euh, euh, marib maanaam aljawaaril kunnas nga xam day dugg ci ma ay maribam maanaam ay taknusu taknusu fi maribiha ay tadxulu fi maribiha biddéew yi nga xam day day dugg ci fa muy fàddoo loolu loo maanaam loolu moo tax ni tak kii ma ngi koy wax tarafa ma ngi koy ci ci ci muallaqam ka anna kinaasay daalatin يكن فانه وأطرق سي تحت صلب مؤيد يا كلام لول مين معلقته comme ni ngeen ko jàng mu muallaqatu tarafa tarafatul abd mooy lan mooy wàllu dugg loo xam ni dafay dafay dafay maanaam gaynde yi njaay àll yi fi ñuy dugg boo seetloo genre day mel ne lu mel ne pax waaye nag du nekk pax ci ndax ci ci lu mel ne lëm lay dugg léegi nag biddéew yi yàlla subhanahu wa taala dañuy misaal biddéew yi fa ñuy dugg al jawaaril kunnas xunnas wax nga ko mooy ñi nga xam dañuy dañuy dugg dañuy dañuy nëbb ci bëccëg gi waaye al kunnas ñi nga xam dañuy dugg ci ci ay maxibam al jawaari firi ngoo tamit léegi wallayli ida asas ida asas nee na asas maanaam add xam nga asas day firi adbara day firi aslam day firi aqbal وانت القران ليلك سياق بكبب مولاي جوخ لمي فيري في والليل اذا عص عص موي اي اي بمعنى اذا ادبر لو تخ بو ديمي لا موي نيو والصبح اذا تنفس خمني انا العص عص دي فيري ادبر ددونا عص عص دي فيري اقبل جبل سنا عص عص داي فيري اظلم لندمنا لغي نك منوني والليل اذا اد والليل اذا ادبر فلا اقسم بالخنس aljawaar alkunnas wallayli ida asas duñ ko firee zulaam foofu wallayli ida asas guddi gi bu demee luy ñëw après bëccëg gi wan nahaari ida wa subhi ida tanaffas mooy guddi bëccëg gi bu dee nooy bu dee nooy mooy bu demee ba leer leer leeram di di di di di yaatu di di tàllalu di yaatu yi dem loolu noonu la ko mufassiru ni fii beneen bi mooy إنه لقول رسول كريم تنسيري وقفيري بوخمني فيري بو فيري بوخمني آه، فير بو نسور له إنه لقول رسول كريم ويلم بلولو بلغي فيري وخم دعاني جواب موي إنه لقول رسول لم موي إنه لقول رسول كريم وما آه، آه، وما وما إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بضنين لو لبنيونا بأكسي فوف لو التمت معنام لنورفين له ba tax na prix bi moom des na yaa cheikh cheikh euh, Soura. yaakaar naa sama firi olofal ma xam naa li ma ci yëg firi xam naa ni wax naa suñu borom mi ngi génn ci biddiw yi nga xam ni dañuy dugg ak di feeñ dañuy feeñ ak a ndund. Mhm. ok ak aljawaaril kunnas foofu ci baat boobu ma sukkandiku ci. Mhm. planète biddiw yi nga xam ne ñi ngi ci jaww ji te di nekk di wër yeneen biddiw yi nuróole ko kéwél yi nga xam ni ñëw na ci yeneen tafsir yi su donte romb la woon bu yàgg rek man doon tax mënuma wax ni diwa ko wax ok dama doon préciser ni diwa wax diwa ko wax waaye ndax ni biddiw yi feeñ ak a nëbbu biddiw yi nga ne bu gisee day daw ak yu ni mel léegi euh, moom léeg lu ci bëri moom ci tafsiru Qur'an dama ci sukkandiku waa ci borom tafasir waaxa ay mais xam naa kon question yooyu mën nga ko mën nga ko rotal te continuer incha allah ñoo xam ne kon tontoo wuñ ko façon bi nga xam ne moom la ñu bëggee ci ci ci ci tafsir yi nga xam ne mooy al aqdamun incha allah léegi Cheikh Souraka xam nga laaj bi ma laaj gudd na waaye ñaari laaj laa ko def maanaam ma waxaat ko ma waxaat ko fala uqsimu bil xunnasi jawaari l kunnas wal leyli ida asas wa subxi ida tanaffas innahu la qawlu rasulin karim وما إنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين manam li ñaari laaj laa ko def ma bëgg na nga ñëwal ma ci lii maanaam lii bu paree ñetti laaj dong moo lay dese fala uqsimu bil xunnas al jawari al kunnas wal leyli ida asas wa subxi ida tanaffas innahu la qawlu rasuli ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب bi لجي léegi ba ba ba ngay wax wama huwa ala alxaybi bi danin ñaari la ñaari laaj nga leral ma li bu baax a baax yi ayat yi mo wax bu baax a baax ndaxte mbir mi nekkul rek ci giñ fi khunnas ak al kunnas loolu amul problème legi ñëwal ci yenen ayat yi ci dess bu koy fe nga leral yaakaar naa ni it eh, isa encensé it dana fi di isa aqbala bi zalaamihi de ah naa ko bu ko suñ mbokk yi toppee yaakaar naa wal layli maa ngi giñ ci guddi bu demee ba aqbala bi aqbala bi zalaamihi bu demee ba dëgmal si dikk ba lëndëm waaye ba subx isa tanafas bu demee ba tanafasa subx du suba day noyyi ak bakkan mais injala ak leeraayam yaakaar naa loolu wax naa ko incha allah moo tax rek ñu sukkandiku ci déggin boobu nga xam ne gën naa jege wal layli ida asas wa subhi ñu yemandi foofu waaye bu ñu continué dañu dugg ci innaha innahu la qawl rasulin karim te loolu xam nga ni boo ko gisee xam ne jawaabu xasam la day tontu li tax muy ngiñ moo tax ñu yemandi fii ngeen yemandi incha allah bisimilah kon bisimillahi rahmaani rahim bi sunu borom jiñee ci biddiw yi nga xam ni dañuy feeñ ak a nëbbu biddiw nga xam ne aljawaar yi ña ngay daw ñu misaal leen sax comme comme ci façon bi ma ko waxee ñu misaal leen sax ba leen misaal ci kéwél goo xam ne bu gisee nit daw wala léegi giñ naa ci guddi moom guddi ida as-as bu demee ba lëndëmam nga dëgmal si bu demee ba taawloo lëndëm lëndëm wàcce dem na ba kukk waaye wa si maa ngi giñ ci suba it nag ida tanafas bu demee ba nokkeek leeraayam maanaam bu demee ba génnee ak leeraayam leeraam jege si léegi tax muy giñ innahu la qawlu rasulin karim lii ngeen nii di ko jàng alquran ji la qawlu rasulin karim kàddug yonent la goo xam ni yonent bu tedd la léegi yonanti boobu ci lay dellu yonent bi sallallahu alayhi wala jibril lay dellu am ñu ci jibril lay dellu c'est parce que zi quwwatin inda zil arshi ku am kattan la ku am doole la waaye ko am kóolute la ku sunu borom wóolu la makiinun indesil arsi ca sunu borom makiinu ku yàlla jàppandal la nag mu amuk jàppandi maam am kilifteem ci kaw malaaka yi mhm. amuk jàppandi ci topp gi nga xam ni moom lay topp boromam waaye amuk jàppandi ci topp gi nga xam ni moom la malaaka yi di topp ci ay ndigalam ndax boo seetloo bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam def isra wal moom moo yoroon protocole bi moom mooy ubbiloo malaaka yi buntu yi wastaftaxal biibaana staftaxal biibaana muy ubbiloo malaaka yi buntu yi buntu bu mu dëgg ma leen maa ngi ànd ak rasulullah protocole boobu nga xam ne moom moom moom la gàddu suñu borom melal ko suñu zi eh, eh, ku am kattan la inda zil arshi te suñu borom makiinun ku suñu borom may ak jàppandal la maanaam kilifteef ci digganteem ak malaaka ku ñuy topp la moom jibril sëmma mu ku ñu topp la sëmma foofee ca malawul aala wala fa mu jiitee malaaka yi doon ko aminun ku sunu borom wóolu mooy aminul waxyi di jëlee waxyu gi ci baytul maamur di ko indi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii wuduuni euh, salaatu kon maa ngi giñ ni kon dafa giñ ne lii ñuy jàng alquran la yonent bi sosalu ko boppam ba yahuud yi yéeféer xam dañ ko daan day way ak day léeb yu ni mel waat gi ñëw daal di dàq seen layas neenal ko neen kii kat li muy wax euh, la qawlu rasulin karim waxu yonant bu bu la kooku nag mutain ku ñu topp la sëmma foofee ca ca ca malawul aala aminun ku wóor la ndax yokkul ci wax yu gi wàññiwu ci kon nag yéeféer yi nga xam ni ñi ngi gam-gamle ak it ñi nga xam ne ñi ngi gam le ndax yonent bi lii mi wax dëgg la ne jibril la ko jox sunu borom di woral loolu daan leen innahu la ko wa ma saaxibukum seen waa ji doful bay jànnaxiwul bay wax ni gis na malaaka mu koy jox alquran te fekk gisul dara laqad ra'aahu gis na jibril ci melokanam mom moy beneen martaba ci maratibul wahyi ndax wahyu ay martaba la ruya xitaabun kadal ilqa'u min malakin maratibul wahyi la satagula tahin gént gis ak li malaaka mi sànni ci xelam ak yu ni mel ñent yoy yep maratib yoy yep nak martaba bi yonent bi wax ko gis na jibril ca malawul a'la ca melokanam wa sunu borom binde mun wala qad ahu gis na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad gis na moom sallallahu alayhi wa sallam hu jibrila aha wa laqad raahu bil ufuqil mubin yaakaar naa loolu la wa laqad raahu gis na ko bil mu mubin ca gox yu kawe ya waaye gisin boo xam ni gis gu leer nañ la mu biin mu gis ko ci melokaan wa sunu borom bindee ñun ba ko gisee nag mënu ko supporter attanul gis gi attanul melokaan bi mu gis dafa mujjee xam am na sax ñu ni même ci alquran di njëkk a li tax mu bi doon dem ci Xadija naan ko zëmmilu ni zëmmilu ni booba da feeñ ci melo malakaan wu wu mag a mag a melokaan wu mag wee mag ba loolu tiitaange googu jàpp ko mu naan zëmmilu ni def séeru ni kon wa maa huwa moom yonent bi nekkul ba mu gisee jibril ci melokaanam yooyu kon kenn du ko tuumaal ni xel mee dem moo tax muy gis naan dafa gis li gisul li doful jinne jàpp ko ka mu gis kooka la waaye maa huwa ala al xaybi bi danin nag nekkul koo xam ni day ngotte mm-hmm. wa maa huwa moom nekkul moom saa sallam bi daninin di ngotte ala al ci kumpa nayul joxe li sunu borom jàngal waaye nayul nayul di joxe li ko sunu borom jàngal muy alquran nayewu ko joxe waaw wama huwa doon déet moom yontu saa sallam bi doon ku ngotte di ku ngotte ci li nga xam ni mi ko jëlee ca boromam du leen ko naya jox daf leen di jàngal jikko jàngaleen waxu yàlla jàngaleen atte yi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy ñëw ci aay boobu suñu borom naan leen kii doful ba leen wax gis na lum gisul waaye lañ ko jox mottewu ko di ko téye moom comme li mbokk yi di wax tubéyu paate képp ci bolle waaye lépp li ko sunu boroom jox da koy joxe ca naka ko sunu boroom jàngalee nayu ca dara mottewu ca dara dencu ca dara la en dehors de li tàmbale aaya bi muy euh, muy falaa uqsimu bil xunnas nga xam ni li ñu lay taayalee moom mooy dañoo ñëw privilège aspect scientifique bi waaye ngiñ la sunu borom doon giñ pour wane li muy bëgg wax ni am na solo pour tuuma yi nga xam ni waa Makka wala waa Madina ñi ngi ko koy wala waa ko koy tuumaal mu leen xamal ni li ma giñ ñii lépp lu am solo la ndax yooyu dañoo bokk ci dañoo bokk ci participer ci doxalinu adduna bi waaye yonent bii nag man yonent bu tedd la te wax ji mu indi yonent bu maam yónneent ndaw lu tedd moo ko indil muy jibril jibril moomu nag du jibrilu kese kese kese du n'importe qui lu muy nekk nekk malaaka kilifa la ca kanamu malaaka yi mu jiite la muy nekk kilifa ca malaaka yi mu jiite yépp ku sunu borom wóolu la naka sunu borom wóoloo lépp nag moom moom ku wóor la ku amuk jàppandal ci liñ ko wooloo la kooku nag yonent bi su ne gis na ko rek gis na ko ndax du xelam dafa dem ba muy wax lu mu xamul gis na ko te man seede naa ni gis na ko la qad raahu la qad ca dëgg-dëgg raahu gis na ko ca gox yu yu gis na ko gis gu leer gis na ko fii ci àdduna mu feeñ fees dell jabalu penkook soowu yonent bi xam ci loolu waaye gisaat na ko beneen yoon laqad waaw gisaat na ko yeneen yoon kon moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom di ko garanti moom gis na jibril ki mu gis jibril la ci melokaan wi ko sunu borom bindee donte moom àttanu ko mu xam ginnaaw loolu nag li ko jibril moo ma jox sunu borom di wane ñu jàngite loolu sunu borom di wane ku ko fonk la ndax fam ko war a yeggale yeggale na fa mootu ca dara moo tax xajatu daa bam ne ala hal ballagtu min ko waa mu ni fal yuballigh al xaadir al al ghaib ki fekkee na jot li ki yegg ndax jotal naa suñu borom dafa ko garanti loolu ndax wa maa huwa nekkul moom yonent bi saa sallam bi dani nin di naya ko jàngal ok wallahu taala alam loolu moom moo ci suñu dégg-dégg waaw euh, cheikh Souraqa shukran waaw léegi euh, xam nga yàlla yow da nga ne yàlla maa ngi giñ fala uqsimu bil xunnas xam nga fala uqsimu lu tax firi duma gi ndaxte laa yàlla dafa ne laa uqsimu fa laa uqsimu xam nga yàlla newul uqsimu bil xunnas xam nga uqsimu bil xunnas mooy maa ngi giñ waaye aay bi dafa ni fala uqsimu bil xunnas lu tax doo ko firee yàlla na duma giñ ci xunnas kon yow léegi laa boobu foo koy foo fan nga koy féetale beneen bi ida as as ñi ko firee aqbala tuuti lañ mën nga ni deux pour cent ci ci moo tax da ngay dégg tabari ni la ijtamaa al mufassirun ala anna maana asas bi maana adbar bu fekkente ni mufassirun téeméer lañ benn wala ñaar benn wala ñaar ñoom ñoo ko firee bi maana aqbal moo tax léegi da ngay dégg mu waqaala axaruna foo dégg waqaala axaruna rek ñooñ ñu ci bare bëri tuuti nit lañuy doon kon ak as as bi maana adbar ndax te yàlla fi li muy wax foofu mooy bu guddi bu guddi gi dee dem suba si di ñëw xam nga mënoo koo firee guddi gi di ñëw suba si di ñëw ah wallayli ida aqbal wa subh ida tanafus mun ta nekk fokk guddi gi day dem maanaam foofu la yàlla di wax yàlla day wax guddi gi bu dee dem nga xam ne lam yabqa minhu illa yasir bu dee dem nga xam ne daanaka bu buñ julee fajar ba pare guddi gi li ci des bariwul suba si di ñëw foofu la yàlla di giñ kon a ak as as asa mënuñu ko firee aqbala bi zalaamihi kooku ñi ko wax tuuti lañ nit nit nag dafay juum te loolu tax dal nee na taxte ak tabar yi taxte ak na leen in na seen wax mais mais loolu wax jooju du méngoog aaya bi ndaxte comme yàlla mi ngi wax bu bu bu guddi gi dee dem ba bëccëg gi dee ñëw kon as asa duñ ko mën a firee guddi gi day ñëw day def إذا عصعص بمعنى إذا أدبر والصبح إذا تنفس ما سوبي سوبي سوبي دي نيو لجي آه، بنن بي إنه لقول رسول كريم لجي القرآن داكو موي جبريل كوك موي جبريل واي يال دفني إنه لقول وخو كون القرآن وخو جبريل ولا وخو يالا القرآن وخو يالا ولا وخو جبريل انه لقول رسول كريم نوماي نانغا ماي تونتو فوف بين دي موي وما هو على الغيب بضنين ابن كثير اك ابو عمرو البصري اك اك كفائي نيوم داي جانغ وما هو على الغيب بظ بظنين بالضاء ولين يخ بالضاء لا بالضاء على الغيب بظنين بو فكيني قراءه بوبرا نان لي نان لي فيه بفك وما هو على الغيب بظنين ابن كثير ابو عمرو الكسائي وما هو على الغيب بظنين الضاء مكان الضاء قل لي بدي بظنين للي فيه مانجي مانجي خار تي كي ليرال يوي السلام بانغي مو امي تيون دا دا ماي دا ماي جوغي تي كي دارا دي ييغات ني اها wallayli iza as as jooju xam li may li may indi moom mooy falaa uqsimu ji nga xam ne wax mooy laam googu laam ziyaada la du fala uqsimu maa giñ laam googu laamu ziyaada la comme ni mu amee ci laa uqsimu bi yawmil qiyaamati noonu la amee uqsimu ay ay tawkiid la fala uqsimu maa ngi giñ laam googu laam ziyaad la ok insha allah dégg nañ irtadaat yi comme comme kii mu musaabaqa la moom du du niqaaj insha allah jël nañ ci note bu soobee yàlla nañ topp ok maadaama euh, wala ihtimaalam doonte am na benn groupe ci groupe yi mu fasiru ñu ko indee noonu rek moo tax indi nañ te comme que dañuy giñ mu nekk niqaas waaye comme que day giñ ni maa ngi giñ ci guddi daa defaat wa dina waawul xasam pour giñaat wa subha ida tanaffas giñ ci wal layli ida asas di paar lëndumaayu guddi giñaat ci leeraayu suba gi nga xam ne mi giddi loolu it muxtamal waaye incha allah jël nañ ci noonu yàlla baaxam mais laaj bi la nga laaj fala uqsimu bil xunnas laam gi laamu ziyaada la waaw ah, kay mënuñu naan uqsimu bil xunnas mais laam gi la ci dugal pour mu dëgëral mu rotal alif gi li tawkiid bu nit fala uqsimu laam gi ak alif gi loolu ziyaada la ci waaye lu ci jublu moom mooy maa ngi giñ maa ngi giñ comme ni muy giñee ci laa uqsimu bi yawmal ok loolu daal moom la tafsirkat yi wax maa ngi jégalu nag ab baat bi est ce que yooyu fekkente ni euh, li dellu ci ndax alquran waxu jibril la wala kii loolu dafay yóbbu daf ci werante wu bëri woo xam ne ñëw na ci borom xam-xam yaakaar naa al itqaan laa ko li nga xam moom mën naa irfaan dañu werante ci ndax alquran ji almaana min allah wal alfaz min jibril aw almaana min allah wal alfaz min muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam soow loolu ñoom dañ cee werante lu bari waaye comme man sama gëm-gëm moom mooy alquran nazala kama nazala kama kama huwa min min indillahi bi alfazihi wa maani ok kon innahu alquran ji Okay. la qawlu rasulin karim du waxam exact mais waxu lantinoor maam waxu jottali la lantinoor la ci moom jibril mu jële ko ci sunu borom bi alfaazihi wa maanihi jottali ko yonent bi yonent bi nag jottali li muy jottali lu jógee ci kàddu jibril la waaye kàddu sunu borom subhanahu wa la waaw kay boobu moom moo ci ne kon innahu ma alquran ji la xawlu rasulin karim waxu yonent bu tedd la ci lan ci jottali mais du wax du wax bu jugee ci moom aslan wax la bu yegg bu mu bu mu jottali moom mais du wax boo xam ni dafa jugee ci moom aslan waxu sunu borom la jaar ci làmmiñu jibril jaar ci làmmiñu yonent bi sallallahu yegg si ci ñun waaw kay kon liy wéer féewee moom mooy alquran ji waxu sunu borom la bu jaar ci làmmiñu jibril comme lantinoor waaye nag yegg ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa pour mu jot lu ñu ko ala kulli xaal bu ko defee bañ a mu bañ nekk lu duy dugg ci werante bi nga xam ni borom ah, bind yi wax nañ ci lu bëree bëri bëri ci werante ndax badi moy badi baat yi yàlla wàccee ca lawful mahfuz wala baat yi baatu jibril la wala jibril dafa yónnee maanaa ji yonent bi yonent bi wax ay baatam yooyu yëpp werante nañ ci werante woowu dafa yaatu ndax yeneen ay yi leen baat nga xam ne ñoom ñooy ni waxi sunu borom du waxi jibril jibril lantinoor la ci moom mooy leeg da ngay romb ci alquran suma tanzilu min rabbil alamin yaakaar tanzilu min rabbil alamin ay bi wa alfaazihi tanzilun min rabbil alamin lu ñu wàccee la mu jugee ci sunu borom subhanahu wa taala ok baax na ah, kon dafa def laaj bi wa ma huwa ala al ghaybi bi zanin ñi koy jàngee bi zanin waaw ah ak njort lay firi ok comme ibnu kasir bu ko jàngee loolu ah mi ngi jóge zanin mooy mooy mooy ñu koy njortee loolu njortu gu nuroog tuuma njortu tuuma maanaam maanaam yonent bi sallallahu alayhi kenn du ko njortee kumpa njortu tuumaal zanin googu zanin ñu ci zan yaakaar na zan te zan lu ci bari tuuma la comme ni sunu borom euh, inna zann la yugni min al xaq shay'a na zanna laa yughni min al haqq shay'a yaakaar njort moom daa ni ko tungoomul dëgg lu ci gën a bari njort du tungoom dëgg de lu ci gën a bëri maanaam kon nag moom wa maa huwa moom yonent bi saa sallam nekkul bi zaninin ñu koy njortele njortu tuumaal al bi ci li nga xam ni kumpa la kenn du ko ci tuumaal maam li ñu ump li ñu moom kenn du ko ca tuumaal moom yonent wa sallam bu fekkente ni njàngin moom nga xam ni wax xam ma ko jàngi noonu sax wax ibnu kasir nga wax waaw ibnu kasir fekkee moom moo jàngee noonu it njàngin moom mu jàngin ma huwa bi zaninin alal ghaibi kenn du ko njortale njortu tuuma ci li nga xam ni moom mooy kumpa gi wallahu taala alam salaamaaleykum tullah te daggit woowu ci question bu dëgg yàlla yàlla xam ne déglu ma ko woon lu yàgg di xaar question après may xaar ma dégluwaat ma dégluwaatee ci laa gis ni man àggale wu ma audio bi maa ngi tuub loolu. Euh, waaw Cheikh Souraqa baatu damay bañ a werante damay bañ a naqaas baat boobu sax waroo koo indi ci mahdaru musaabaqa loolu dafay wuute dafay dafay dafay kontranteeg euh, aadaabul musaabaqa musaabaqa moom da yow ñëw nga ba agsi laaj nañ la. nga wax lii bi nga laajee ki ngay ki ngay defal musaabaqa moom nee na la déedéet nii la léegi nag même sax boo ci àndul da ngay bàyyi ba musaabaqa bi jeex ba ba ba ñëwaat ci lu dul musaabaqa nga nga ñëwaat def sa munaaqasa bu la neexee wala nga jël ko ci suuf mais maxdarul musaabaqa moom loolu moom bul ko bul ko ko di tàmmal fenn di ko di ko ko def maanaam damay bañ a werante déedéet werante amul foofu premièrement nee nga fa laa uqsimu laa nee nga ziyaada la d' am ñu ko def ziyaada waaye nag ziyaadatun li isbaati ziyaada ziyaadatun li isbaat laa li nafi léegi nag yow dama li nga ni fa laa uqsimu fa laa uqsimu am na ñu koy waxee fa la baat ndaxte xam nga am na ñuy wax baat boobu boo boo ci lool rek da ngay dugg ci benn loge boo xam ne nag xam fu mu lay yemale ndaxte mënoo ni fala uqsimu la boobu nekk ziyaada mënut a nekk la bu fekkoon ni fala uqsimu mooy cosaan ni kon laam kon laam boobu day nekk laamu tawkiid laa maanaam fala uqsimu laa boobu bari na lu mu ñëwee ci alquran yàlla nee ci ci ci ci bi muy sujjóotloo malaaka yi aadam bi iblis ba ñuy sujjóot qaala maa manaaka an laa tasjud laa boobu laamul tawkiid la فوق منك لا لا ما نام لا بمسك دوني فلا أقسم خير أم نيكوه وانت بوني فلا أقسم كون زيادة أم تفوف لجي دعنا لا لا بمنيوا بتشو تشو رت مجادلة تشو الحديث يعني لألا يعلم أهل الكتاب بمعنى لأن يعلم أهل الكتاب نيوا بتشو رت طه يلا يلا وحنا بموسى دي هارون نيكو يا هارون maa manaaka an laa tattabiani laa yooyu laa day bi maanaa tawkiid bi maanaa tawkiid kon fa laa uqsimu mënuñoo wax ni la uqsimu la ñu yokk ci alif déedéet kooku amul amul yaani amul amul majaal lil munaqasha parce que parce que boo boo nee am nañu wax loolu baatu am nañu wax lii am nañu wax loolu mais am na ñoo xam ne ne yàlla am na do est ce que da ngay indi seen wax déedéet du jaageen wax bu wax rek dañ ngay ictibaar bu fekkee wax ji dafay contrante li nga xam ne mooy mooy qawaid loxo loolu du ma nekk foofu ala kulli xaal ñu ñëw ci beneen laaj incha allah barakallah Seydi ok déet waxuma ci baatu niqaas ci wala uqsimu de déedéet ci baat bële dina wax ni Ida Af'af bi yaakaar naa ne yaakaar naa ci bi may contribuer ci point bi nga dugg isbaatal nga ma ko di ñu am nañu ko wax waaye dañoo bëriwul loolu laa wax hmm. comme que musaabaqa la te wax naa kàddu ba pare ndax ñiy noté dootuma ci mën dellu naaw di ko retiré waaye li nga wax jël naa ko comme note am baatu fala uqsim bi yëpp gis la ku mu méngool comme ni la laa uqsimu bi yawmil qiyaama laam googu tamit laamu ziyaada la comme laa uqsimu bi yawmil qiyaama nekki noonu it noonu la amee ñu jàpp ni fala uqsimu laam di ñëw nekk laamu tawkiit ni fala uqsimu léegi nag euh, dama dul mën a sukkandiku ci ni la diw nee na nangam diw nee nangam ndax xëy na gëj koo xool yàgg mën naa am gëj koo xool am na ci wala gëj koo am na ci waaye lenn lu ci nekk rek am na ñu taxaw taxawaay boobu ala kulli xaal léegi dañ dama doon xam nag ndax euh, musaabaqa bi maam ni ñu tontu jun dafay méngoo rek rek rek benn taif la wax wala dañuy wax benn gisini benn taif rek wala dañuy dañuy dañuy dañuy boole xam yooyu ci point principe bi la waroon bokk ñu leeral ko ba mu leer duñu firé ci taifa ban lañuy japp ñom lañu wax wala kenn ku ci nek sa déggin ci alquran ak ñangat nga topé rek ngay indi wa cheikh suraq xolha yow yaang nan lam lam amu fi dafa am lu nan la ak lam dafa am lu nan la ak lam fala uqsimu ak fala uqsimu ñaari xam nga bo ne fala uqsimu lam la fala uqsimu koku la laala laala phrase jeex na moom noonu la ñëwee mais boo nee falaa uqsimu laam ngoogu laam ngoogu la tudd laam laa la tudd maanaam laa dafay ñëw léeg-léeg li nafi laa dafay ñëw léeg li tawkiid laa dafay ñëw léeg-léeg li li li li li ziyaada yàlla nee na falaa wa rabbika laa yuminuuna xatta ko falaa wa rabbika laa googu lan la est ce laam nga koy fiyee est ce que da nga naan falaa wa rabbika munta nekk laa dafa ñëw noonu noonu mu ñëwee noonu noonu la noonu lay déplacé woo noonu noonu lañ koy indee ci ay ci ay ci ay jumal moo xam ci alquran wala ci sunna wala ci waxu euh, arab wante laa la tudd tudd laam parce nee laam googu rek dafa dafa day tudd leneen dafa am lu naan laamul muzaxlaqa inna zaydan la qaimun kooku laam la tudd wala nga ni euh, euh, yàlla ne la tarkabunna tabaqan am ta kooku laam la tudd la azhabu laam la tudd amma nag laa boo xam dafa ñëw noonu loolu tudd laam laa la tudd beneen laaj bi yàlla defan ci suurat alfajr فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا léegi ñëwal ma ci ñaari aay yooyu nga tasal ma ko euh, indil ma maanaam duggal ma ci loxo yi loxo yi bu baax a baax a baax ndaxte fokk ñu ñëw ci sarf boo déggee yàlla noonu fa amal insaanu ida mabtalaahu léegi baat boobu ñëwul ma ci sarf bi ak ci prix bi tamit rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi yàlla dafa ne akramani waxul akramani maanaam gisuñu maanaam dafa am qiraa bi ñoo xam ni dañuy dañuy dind dindi euh, yaay bi naka fa yaqulu rabbi ahaanan waxul ahaanani léegi euh, yaay yooyu ñuy dindi indil ma ci wàllu sarf lan moo waral ñu koy dindi ci yenn qiraa bi gannaaw ba nga firilee baat bi nag ak maanaa bi yëpp waaw kay bismillahi rahmaani rahim wa amma al insanu إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانني وكيفوف <coughs> سنبرم أما الإنسان الإنسان فوف يفر بلا جنج آه، بجكري أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني yéefar bi nga xam ni dafa gaaw a saalit bu ko sunu borom nattoo isa mabtalaahu rabbuhu su ko sunu borom nattoo fa akramahu maam ibtalaahu mooy nattu maam wax ma nattu gi nga xam ne musiba la mais nattu nga xam ne examen lay lay teg maam di ko di ko ko testé boo bu ko testé saytu ko ba xam ndax moom ku dëgër la wala ku dëgërul fa akramahu mu teral ko jox ko alal ko wér yaram jox ko jox ko nga xam ni jamono boobu loolu lañ tuddee teraanga bu ko sunu borom joxee fa yaqul daan rabbi akramani sama borom desalatuma dara teral na ma amma idaa mabtalaahu su ko sunu ki nga xam ni baadoola la maam yéefar nattu goo xam ne da koo teg ay tartar qadara alayhi rizqa ba wërsëgam xat ci moom wàññi wërsëgam qadara alayhi rizqa wàññi wërseug wi xatal ko ci mom fa yaqul dafa wax ni rabbi ahanani sunu borom day doya dal nama fay sunu borom day doyadal na ma aywa batu ibtala dafa jóge ci baliya moy nak al baliya baliya aha da nga gis abla bala an hasanan waye ibtala ñu ziyaada ci ta ak alif ibtala te arab daf naan ab baat saa ñu yokkee nombre xaraf ya pirin ma gën a yokk maam su ko suñu borom nattuwee ibtala ñu nekk baat boo xam ni dafa nekk baat boo xam ne dafa ràgg ràggee mucc mhm. nekk euh, tuddee euh, naaqis naaqis naaqis i ibtala yabtali naaqis yaa i almazid ñu dolli ko boobu di firi su ko sunu borom nattoo ok léegi bu ñëwee ci baatu ahanani daf ci am ay jàngkat yoo xam ni dañ dañ koo jànge ahanani dagg yaagi ok ndax tur la euh, astafurlah dagg dagg yaa te dagg yaa googu nag loolu moom mooy li nga xam ni noonu lañ ko bindee ci mushaf bi ci saxaaba yi yëpp dëppoo ci maam bi ras ras rasm bi nga xam ni man loolu laa di xam moom mooy saxaaba yi kat ñoo dëppoo ci ni nañ ko bindee dagg yaa gi ahaana ni ahaana ahaana ni bi ijmaai saxaaba ci lañ ko bindee noonu te saxaaba yi ni ñu bindee alquran yaakaar naa deesu ko deesu ko soppi waaw su fekkente daal ci baat bi ibtala li ma ciy gis moom mooy baat la boo xam ni naaqis la yaa i waaye mazid la mhm. Mhm. ok masaram doon nekk baliya ismu bi baliya muy natt mhm. kon nag loolu laa ci indi amal insaanu doomu aadama daal su fekkente ni doomu aadama sunu borom doomu aadama bi nga xam ni insan taxaw taxawaayu yéefar bu nekk am boo xam ne yu raade wiir xaas du nit ñëpp mais nit ki nga xam ni moom moo yoroo yore yore melokaanu waaw kay xanaa li ci jar bàyyi xel moom mooy fa amal insaanu isa ma ma ma ma jooju daa ci wax ji doo ko sax firiwaale ndax da nga ñëw su kon maa ngi amatu fi place parce que zaida zaidatu sila la maam dañ ko dolli ci wax ji te dolli gi pour jàppalante wax ji la rek ndax soo ne isabtaleehu baax na mais soo dool dollee maa gi tax na mu gën a rafet muy zaidu sila zaidatu sila kon isa mabtaleehu su fekkente ne isa ma maa du na fi foofu mais maa day nekk eh, pour waslu ñu dolli ko fi li ziyaadati ziyaadati la faqat kon nag doomu aadama comme ni borom doy na walastu isa ma bahatani xamratun yaqulu balaga saylu zuba isa ma bahatani ma maa jooju kooku ziyaadatu sila la rek waaye li dellu ci akramani man moom fi ma ci li ma ci <laughs> moom mooy saxaaba yi fekk ñu saxaaba yi ko bindee noonu jàngkat yi wuy lañ ci noonu c'est parce boo doon waslu euh, euh, yaqul rabbi akramani wa amma foofu da ngay da ngay waslu da ngay da nga ah, ciy dolliwaale booy waslu da ngay da ngay da ngay saxal yaa gi doone akramani wa amma mais boo doon waslu da ngay akramani wa amma mhm. ok comme nag saxaaba yi dañ ko bindoo noonu moom loolu laa ci laa ci laa ci a xam ne liñ ci jotal liñ ci yokk leeral incha allah ñu ngi koy déglu salaamaaleykum wa rahmatulah wa a waaye ci daal ci firi mi lañ ko jàppe amma isa mubtala ibtala bu dee baat boobu mu ñëw ci wàllu sarf nekk baat boo xam ni eh, naqis la nekk naqis yaa yi waaye ñu ziyaada ci taa ibtala ziyaada bi xarfayn baat bi baliya la woon kon balaa baliya baliya muy ak natt muy ak natt kon boo nee balaa ibtala ziyaada nga ci alif ak taa كون ثلاثي ناقص ثلاثي آه، آه، ثلاثي ناقص ويائي المزيد صح الله ثلاثي لون لكن بني ابتلا دغنيو داني ابتلا ثلاثي مزيد بحرفين مزيد بحرفين وزياده في الالف دنجي الالف دي te balaa mooy nattu baliya mooy nattu kon nag baliyatun mooy nattu ibtala teg na ko sàkkoo na koo teg nattu ñun ida zida fi lxuruf fi xuruf alkalima qad zida fi lmaana ana loolu moo xaayat bi gaay tëral ala kulli xaal ci gàttal daal mooy baat bi ci tasrif nii lañ ko xaw a jàppe ñu ko jàppe muy baat bi sulaasi la boo xam ni naaqis la وأن يوقع نيار حرف من ثلاثي مزيد بحرفين من الألف والتاء بتاك إبتلا سكو نكو تكنك تكنك نك على كل حال لين لكي دس كم نونو باتو إنسان بيت نك نك عام بو خام يراد بالخاص خاص موين مو الكافر الكافر الذي إذا ابتلي جزع إذا ابتلي وزيد في نعمه شكر سنتنا بك واهتز فرحا واذا ابتلي في نقصان ماله ورزقه جزع وصبر إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزع إذا مسه الخير مرعا السلام عليكم واو شيخ صراح من اللي جاج في البغضة أه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ما ابتلاه ابتلا يو يعني من دعاني مين جلسي بلية بلية même sax loolu du cosaan li ndaxte baatu baliya loolu du cosaan la jógewul ci baliya naam wante baatu baliya sax du cosaan baliwa moo doon cosaan li baliwa maanaam balwa moom la woon balawa cosaan li mooy balawa léegi nag balawa boo ko indee ci bosn baliya kon danaan baliwa mu léegi ba ba mu nekkee baliwa ñu gis ni jóge ci kasra jóge ci yaabu kasra jóge ci kasra laay wax di dem ci waaw bu fatxa dafa metti jóge ci kasra dem ci waaw bu fatxa day metti léegi nag kon léegi kasra bi daal di woo mbokkam kasra la mooy la mooy mbokkam yaa ñu soppi waaw bi yaa muy baliya léegi nag cosaan li mooy balawa balawa bu ñu bu ñu bu ñu léegi taxaraka taxaraka xarfu illa wan fataxa maa qablaha idan تقبل ألفا مي بلا معناها حرف علة بفكة دفع أم دفع أم ماس حركة لكن آه، دفع أم ماسو ماسو حركة بطري فتحة جيتوك دي كسوف ألف مي بلا معناها بلا يبلي لكن يعني ونبلوكم ولا ونبلوكم خما كون واب دي نيوات يالا نيا تاميت إنا بلوناهم واب دي نيوات كون أصل بي بلا ولا ولا لكن balaa lii ñu tëggee ko maanaam balaa ñu tëggee ko ci iftaala iftaala foofu taa rek lañ ci yokk ak hamzatu wasl ca commencement ba mais yow da nga ne taa ak gi moom fa la nekkoon bu yàgg alif gi fa la nekkoon iftaala ñu tëgg ko iftaala muy ibtalaa maanaam ibtalaawa la woon ibtalaawa waaw gi comme dafa fa dafa dafa dafa dafa xarfu illa la mu mu mu am xaraka fatxa jiitu ko ñu sotti ko alif muy ibtala léegi euh, kon loolu nag da ci da ciy baax bu ko defee sarf bi loolu la sarf boobu moom euh, euh, comme ni nga ko waxee des na tuuti léegi fa yaqulu rabbi léegi li li may laaj rek mooy maa ne xam nga nee nga maa bi léegi zaidatun sila saxiix waaye nag maani ma laa bëgg indi indil ma ko comme comme nañ ci ma ma ma ci alquran ay maani ñaata la ak lu muy liggéeynu maanaam jëru nga fi ñaata la mais maani ma loo ci xam lan nga xam ci maani ma yi ma ay maanaam ay maanaam maanaam maanaa yi muy demee loo ci xam wax ci benn bu ci nekk indi ma misaal benn bu ci nekk nga indil ma misaal bu fekkee mën ngaa indi misaal ci alquran nga indi bu ci alquran ngay misaal boo am rek baax ma ah. maani ma ah yaakaar naa ne duma mën a takk lépp li waaye xam naa ni li ci xama ko si néew rek ma maa ci alquran de am na ci yoo xam ni day ñëw nekk chart day ñëw nekk chart comme buñ dañu njëkkee ci buñ defa sax comme ma bi nga xam dafa ñëw nekk zaidu sila comme misal bi ñu indi moom mooy bii ay bi bi amal insanu iza mabtalaahu zaid la ndax sila la sila la ma amna ma yo xamni day ñu nekk pour istifham comme wa ma adraka ma laylatul qadri comme loolu yakarna ma adraka ñu nekk pour laaj mal haqa ما الحق ما الحق استفهام امنا جماعة يو خمنيت آه، دينيو نيك كم نفيو لو نيك نفيو نيك كم نفيو ما جاءكم من بشير ونذير كم لول ديكلو لين ما بوم نيو نيك بو نفيو امنا جماعة يو خمنيت day ñëw comme nekk charte yaakaar naa yaakaar naa maa yoo xam dama ko dul teewlu nag dëgg yàlla waaye xam naa ni alhamdulilah maa yoo xam day ñëw nekk comme charte comme wa ma tafalu min xayrin wa ma tafalu min xayrin yaalamuhu yaalamuhu yaalamuhu yaalamuhu allah wa ma tafalu wa ma tafalu lépp lu ngeen def wa ma tafalu min xayrin lu ngeen def ci yiw de amul lu ngeen di def ci yiw lu dul أي لا يعلمه الله incha lay doon am na maa yoo xam ni it day ñëw nekk ñëw nekk comme comme comme comme taajib maa taajubiya comme wa aataynaahu min al kunuuzi maa inna mafatixahu loo xam ni inna mafatixahu tunu bil usbati al quwa yooyu daal xam naa ne teewlu nañ ko ci moom yooyu moom teewlu nañ ko ci moom am na it yoo xam ne comme ay ma masdar yi la comme ma zarfiya la comme comme comme comme bi Isa di wax ak yaayam comme Isa bi mu wax alayhi salaam wa awsaani bis salaati wa zakaati maa dumtu ay feeg maa ngi maa dumtu xayya zarfiya la yooyu daal yaa xam naa ne jàppoon naa ko ci شاء الله واو جوجف شيخ سراقة واو معاني ما قم نينكو اندي امنا تيو خمني ما نمغا اندي وليب واي امنا تيو خمني نون لا واي امنا تيو خمنا نغم أه، نونكو سيطان ما تعجبية دعا جيخي مثال تي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ما بوب موصولية له ويجي تعجبية ما تعجبية موي فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار ما بوب موي تعجبية يعني ما أحسن زيدا ما بوب موي تعجبية ما بيغا وخني موي ظرفية تمت دونو ما ظرفية أموي ما مصدرية ما مصدرية له وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا ما بوم مصدرية بمعنى دوام حياتي في تأويل المصدر بمعنى دوام حياتي لأجي وخو ما كافة من شاء القرآن ما بوهم تكف تكف عن العمل قم غني إنما المؤمنون إخوة إن المؤمنين لون بيتي ما بدو لا لا لا أمبيسي إنك بلقى يمسي مؤمنون جي moy innamal mu'minuna ikhwa kon ma bob mom lay wax ma kafa ma nakira tamit waxoko ma nakira waxoko ma maa nansax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha déedéet yàlla dafa ni inna allaha la yastaxi an yadriba masalan ma ay masal masalan ma مثلا ما أه، لولو موي ما نكره ما تعظيمية جزناني اندي وقتمت تعظيمية هولية غام قبلي في القرآن فغشيه فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشاها ما غشا ما ما بمصدرية أه، موصولة للتعظيم kon ma bo setlo ma sart ye indi ko ma sha allah bo setlo fuk la waji dafa ni mahamilu ma ashr ida rum ida rumta abdaha فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل أعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري ماذا إذا صلة بدي القرآن يني صلة قم موي بيغا فأما, فأما الإنسان إذا ما بتلاه إذا ما بابو زائدة صلة قوك وهمك ما شاء الله أه ما جوخ قاعدة بيبو ما بو خم داف إذا رك ما بابو زائدة في اللغة العربية بب ما boo gis mu ñëw après isa rek ma boobu maa zaida la moo tax waaj dafa ni yaa taaliban xuz faida maa baada isa zaida maa baada isa zaida kon ñëw ñu ñëw ci ñeenteelu laaj léegi euh, Cheikh Suraqa ñeenteelu laaj bi ci suuratu leyl la يلا دفني فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ليقلاد جمعي يا دفني آه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى يلا كلا يوحل جلد ولا يفيد بفيك يفيد الكلا بدي جلد بكلا أكتمت لم وي معنى آية بي ببغي وخ ولا سوف يرضى لب لإن المقوم بهم جزيلا أوكي. وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا أشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى أوكي لاجي بغيك أنت لما يتون ترك كي يالا دي وخل وأنذرتكم نارا تلظى loolu bu fekkente ni ki muy waxal ci jullit bi nga xam ne moom mooy wasay wasay jannabuhal wasay wasa wasay wasa yu jannabuhal atqa Abu Bakr Siddiq lay waxal Abu Bakr comme ni ko ni mu ñëwee ci sababu nuzul yooyu ñu ne Abu Bakr Siddiq lay waxal moom mi nga xam ni mooy génne alalam di ci jënd ay jaam di leen di leen di leen di laabal bu waxee al ashqa it am na ñu ni eh, ki texee di lay waxal moo ki texee di lay waxal ci yéefar yi waaye wa say jënd wa anzartukum maa ngi leen di xupp ñu firi ba pare dooga ñëw maa leen di firi ci maa leen di xupp neen moytundiku leen naaran safara soo xam ni talazza dafay tàkk mooy dafay tàkk taltazi wa in ra'ayta bi naari xarbin taltazi fa alam bi anni mushadun zaaka laza ok tàkk laa yaslaaha du ca tàbbi nag du ca tàbbi mukk illa al ashqaalul ka texee di ki texee di ki nga xam ni dafa weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg al ashqa ka texee di rek moo cay tàbbi allazi ka nga xam ni kazzaba dafa weddi wata wala wane gannaaw comme umayatu bnu xalaf fu ñuy wax xam dafa weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weddi ko ba pare wan ko ginnaaw di dox pour nit ñi weddi yonent bi foofu xaasun euh, kooku kooku umayatum nu xalaf la mbir moom wàcc ci loolu waaye képp day taxaw taxawaayu képp weddi yonent bi sallallahu alayhi di ko gàllankoor rek dafay dug ci al ashqa hmm. wa sayujannabuha dana moytu safara wi mu leen di xuppee nag al atqa ka ragal yàlla borom xol bu ragal yàlla mu bokk ci ngëneeli abou Bakar Siddiq radiyallahu allah anhu yi ñu koy ne mooy bokk na ci amul kenn kuy dox ci kaw suuf ginnaaw yonent bi ku gën abou Bakar moo fi gën ci wàllu ngëneel ci wàllu ragal yàlla comme bi ko Umar di seedeel si na Umar radiyallahu taala anhu njëkkante wu maag abou Bakar ci yiw lu dul fekk naa ko mu njëkk ma ci kon mu huwal atqa huwal atqa ji nag sunu borom seedeel ko ci alquran ji di ñu décriral li tax mu gën mu ne allazi yuuti maalahu dafaa joxe alalam pour lan yeta zakkaan jubu cee laab nee nañu Abu Quhaafa mi papaam mas na ko ne yow Abubakar sa alal ji ngay jël di ci jënd ay jaam yow jaam yu lompoñ rek ngay jënd est-ce que mën woon jël sa alal ji jënd ci jaam yu dëgër pour boo demee ba bis laaj ko ñu taxawu la mu ni ko lii de dama koy def ngir la ma cey wut rek laa cey wut te mooy yàlla ji mooy al atqaa ji kon bu boobaa bu fekkente ni dégg naa laaj bi muy aay bi waxal dafay wax ak jullit di wax ak ko yëfër moytu leen yéen jullit ñi naaran talazaa xam ni la yaslaaha du ca dugg mukk illa al ashqaa lu koy gën a texee di te umayatu bnu xalaf ci la bokk ok umayatu bnu xalaf ci la bokk ba nga xamni ci ñi gënoon ba yonent bi la bok ak di dox ngir di yaqal yàqal keneen ki mi waxal ci julit muy wasayu jannabuha dana ko moytu safara wo al atqa ci gëna ragal yalla abou bakar jëf la ci jublu mom mi nga xamni da fay dox comme ni jëndé bilal jël alalam dox yonent bi jël alalam jënd ci ay jaam ñu doon mbugal di leen gorel ba papam diko jox nan ko del jënd jaam yu am doole yaakaar naa bu dee loolu nga laaj de yaakaar naa ba tey ci maanaam allazi yuuti maalahu muy jox ay melokaani ki nga xam ne mooy tàbbi aljana te gën mm-hmm. ki ragal yàlla al atqa ci baatu loo atqa atqa comme na na ko na ko Seydina Abubakar waxe woon ba ko wàñ ne ko la ma attaqwa mu naan ko gis nga booy dox ci yoon wu am dég ni ngay moytoo mu ne ko waaw mu ne ko loolu mooy taqwa moytu mooy moytu fente ok allazi mooy ki nga xam ne ci melokaan yi mu gënee ba tax ñu naan moom de mi ngeen moytu safara dellu ci xadis yonent bi doon jàngale na ngeen moytoo safara wala bi shiqqi tamrin kon jooxe gi muy ma ngi cay moytu safara kon suñ ba mi ngi ñu wan ji ab Bakar kuy moytu safara la te nam koy moytoo mooy jooxe gi muy joxe donte xaru tàndarma ngay moytoo safare moom muy moom muy joxe lu ëpp xaru tàndarma di joxe alalam di ci goreel ay nit ok yuuti maalahu dafay joxe alalam yatazakka di ca laablu suñu borom sellal ko ci wa maa li ahadin amul kenn indahu fa moom koo xam ni tujuza dees na ko fay lu dul dafa joxe ibtigaa wajhillah mooy dagg sama kii bi mu ni wa maa ahadi amul kenn koo xam ni indahu fa yàlla tujza ku ñu mën a fay ila ibtigaa lu dul dafa joxe ngir ku ca ngërëmu boromam maanaam ki dafay joxe alal ji ngir di ca sàkku ngërëmu boromam kooku la sunu borom di fay waaye nga xam ne dafa joxe alalam ngir yeneen intérêt intérêt boobu mooy feeñ ca lam joxe Mhm. te képp ku joxe alalam na ngir sàkku ci anamu boromam la sawfa yarda kooku moom mooy ki sunu borom gërëm te dana ko gërëm moo tax daan nga dégg yonent am na ci xadis moom naa naan yàlla yàlla yërëm Abu Bakar ndax moom ma may doomam dalal ma ci ànd man yóbbu ci daarul hijra te it moom moo ba golal bilaal ci alalam yëpp moo ko def kon nag wa maa li ahadin amul kenn koo xam ni tujza daañ ko fay min nicmatin ci xéewal indahu fa moom sunu borom maam na ko dana ko neexale ludul illa ludul dafa joxe alalam ibtigaa wajhi rabbihi di ci ngërëmu boromam kooku dafa la sawfa yarda boromam dana ko gërëm te Abubakar moo ëppale ci ci ci ñuy def lu ni mel ala kulli xaal salaamaaleykum waaw jërëjëf Cheikh Souraqa ñu ngi lay jaajëfal bu baax Souraqa kenn wax wa anzartukum loolu amul ci alquran man bi wax dégg nga li ma wax fa anzartukum fa fa ak wa maanaam alquran da nga indi lépp ni mu demee fa anzartukum naaran talazza تلظى لمفري لما دينغني تلتظي بوكل ديري تلظى ناري تالون تتلظى نيدين بيني لو دا القران لو بري دا فنيو سي اللغه العربيه نيونا سي عربي يعني نتنزل الملائكه اي تتنزل الملائكه تلظى اي تتلظى دا نيدين بين تابي غير وايفال نارا تتلظى naaran bul wax taltadi naaran talabba bi maana tatalabba waaye yow da nga ni taltadi déedéet du noonu laa islaaha illa al ashqa yenn mufassiru nee nañ Umayya bun Xalaf bun Xalaf waaye as saxiix mooy Umayya wa xayruhu Umayya ak ñeneen ñu du Umayya loolu loolu leer nga nee nga kenn kenn ak képp ku def naka noonu الذي كذب وتولى وسيجنبها دا دانا قميت ديديت يجنب دفني فعل مضارع مبني للمجهول مبني للمجهول وسيجنبها دانكو مويتول وسيجنبها دانكو قميتل دانكو قميتل سفر في كم الأتقى وسيجنب يجنب ويبوك فري دانا قميتل al atqa du ni moom moytu du moom moom du moom mooy moytu safara si waaye al atqa dañ koy moytul safara si xam nga day moytu safara safara si ak dañ koy moytul mooy dañ koy musal ci safara al atqa effectivement wàllu aboubacar comme li nga wax mufassirun yëpp nee nañ aboubacar as siddiq moom la woon alladi yuti maalahu yatazakka ni ko waxee noonu la wante خول ليغا فيري وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى كوك موم نينغ في دار آه، ديموتي ديموتي كيوتي كوركتوتي مانام دار ما نينغ في دفا دفا دفا بريمي دفا دفا دفا دفا آه، دافا جاد يونو باتي تي ابو بكر ليالا يوخ عنده داغني عنده سن بروم ديديت عنده تي ابو بكر موم يوخ عند الأتقى مانام الذي يؤتي ماله كي خام دا فا جخي بوبام دا خالام يتزكى دي سي سلال بوبام بغي سي بغي سي او يو لغي وما لاحد امول كين كين كين توا قريش امول كين نيت عنده كو خامني امنا سي ابو بكر من نعمه تي اب خيول بوم كو tujza ba tax Aboubacar lim def mu koy defal bi maana maana ayib mooy amul kenn koo xam ni li Aboubacar def dafa am lum ko lum ko maanaam teraanga bu mu ko defaloon ba tax Aboubacar di ko njukkale déedéet Aboubacar lim def amul kenn koo xam donc dafa am loo ko lebaloon la koy fayee déedéet dafa la koo defal illa btigaa wajhi rabbihil al aala lu dul mu sakkuk jëmmi boroomam bu màgg ba bu kawe ba subhanahu wa taala wala sawfa yarda bul ko firee ni maanaam yàlla dana ugaram wala sawfa yarda moom Abu Bakar dana xalfet naa kontaan dana gërëm bi soo yàlla jox ci alquran yi wala sawfa yutika rabbuka fatarda léegi wama li ahadin indahu min nicmatin tujzaan xam nga wama li ahadin amul kenn koo xam ne ci Quraysh am na indahu am ca Aboubacar min nicmatin ci ak teraanga bu ko defaloon boo xam ni tujza dañ ko koy fay loola li loo xam ni luñ ko war a fay li ko Aboubacar defal fekk nda ko waroon a fay déedéet ak kon Aboubacar li muy def ci Quraysh nit ñi maanaam bu ma nee Quraysh parce que ñoom la ñoom la jamonoon tee moo tax euh, li muy def ci nit amul kenn koo xam teraanga boo ko defaloon tujza mu la koy ñu ko koy fayee tujza ñu koy faye teraanga bo teraanga boobu ñu koy faye déedéet illa ibtigaa illa ibtigaa illa ibtigaa wajhi rabbihi al-a'la lu dul sàkku euh, euh, maanaam euh, jëmmi boroomam boroomam moom moom yàlla subhanahu wa taala al-a'la noonu lay firi maanaam firiwul ni wa ma li ahadin indahu suñ borom déedéet kon léegi boo nee illa ibtigaa wajhi rabbil aala noo koy fee loolu lépp ci at al atqaa lay dellu maanaam loolu lépp damir bi yëpp mi ngi dellu ci atqaa maanaam fi ngay waxee wa sayujannabu al atqaa ba ba saar bi jeex damair yëpp mi ngi dellu ci al atqaa kon indahu ay inda al atqaa amul kenn koo xam ni am na xéewal goo xam ni da ko koo defal dafa da koo defal mu am ko xam nga arab daf daan def arab da daan def ku la defal xéewal koo xam lahu yad koo xam da da maanaam lahu ind gisoon naa fulaan lahu lahu inda fulaan yad maanaam defal na la teraanga gu rëy teraanga googu nag bis dana ñëw nga fay ma ko yàlla bëgg a wax ni al atqa googi te abu abu bakar moom amul kenn koo xam ni abu Aboubacar dan la defal loo xam ni day fekk ni yow da ko ko defaloo mu la koy fay lu dul lan la defal da koo def ngir sàkku ci jëmmi boroomam subhanahu wa taala euh, wala sawfa yarda léegi euh, kon ñu ñëw ci laaj bu mujj bi yaakaar naa waaw Cheikh laaj bu mujj bi نيجمتي صاروا الزلزلة يعرفني إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها لكن يوم ما ci baat yi baat bu ci nekk nag nga faram fàcc ko firi ko bu baax a baax a baax a baax salaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim ida zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu asqalaha maanaam saar wi mi ngi wax ci yenn taxawaay yowm al qiyaam ak dikkinam mu ni bu demee ba suuf si yëngu tarju fu raaji fa ko dégg bu demee ba suuf si isa zulzilatil ard bu demee ba suuf si yëngu zilzalaha yëngoom wa yoo xam muy yëngoom ba nga xam ni dafa yëngu pour nit ñi dekki ci seeni bàmmeel wa axrajatil ardu suuf si nag daal di génnee asqaalaha la diisoon ci biiram mooy néew yi ñu dencoon ci biiram xam naa ci côté boobu rek lañu jëm suuf si génnee asqaalaha li diisoon ci biiram ci ay néew ak ñi mu dencoon ci biiram muy nit ñi deewoon te ñu suul leen ci biir bu dee ci côté yowmal qiyaam bi muy junj wa qaala al insaanu nit nag naan waaw bu demee ba suuf si di yëngu ñu dekk seen bàmmeel xamuñu la xew dekk seen bàmmeel tiit xamuñu yëngu-yëngu lu ko waral sa parce que tëdd nañ ab jamono wa qaala al insaanu nit ma nga naan maa laha waaw lu dal suuf ba muy yëngu-yëngoom gi nit nag mooy yéefar yi nga xam ni ñu ngi ci seen biir bàmmeel te amuñu yaakaar yow man xëy am jullit sax bu amee yaakaar day tiit na malaha lan moo dal suuf lan moo dal suufu yëngu mhm. yow ma isin keroog jooja nag bu suuf yëngoo ba nit ñi génn tu xaddisu suuf dana wax axbaaraha dana génnee suuf si dana génnee axbaaraha ay xibaaram lan mooy axbaaruha ji mooy suuf si bu génnee bu dekkalee nit ñi ku nekk naan lu xew lu xew lu xew lu bu boobaa suuf génnee ay xibaar sax parce que ñoom bi ñuy wax dañ koy wax waxu waxu ku yëmu waa lu xew suuf na commencé di génne ay xibaaram nag lan mooy xibaaru suuf si bi ñu ko laajoon tëfani mooy xeet wu ne seede ay jëfam maam suuf si di seede xeet wu ne jëf jëmu jëfoon ci kawam yow xeet diw yéen defoon nangam yow diw yaa jëfoon nangam lu tax bi anna rabbaka aw xaalaha loolu mi wax du moo am sañ-sañu di ko wax waaye sunu borom moo ko waxyu la awxaa lahaa sunu borom moo ko waxyu mhm. moo ko diyey moo sant awxaa lahaa mooy moo ko digal comme wa awxaa rabbuka ila naxli sa borom digal na yam amaraha ok bi anna rabbaka awxaa lahaa sa borom moom moo ko digal ko waxal mu commencé seede kenn ku nekk génneel ko ay defam ku nekk mu génneel ko ay waxam ak ay jëf-jëfam ci kaw suuf yax naa fu la yem kulli xaal loolu moom mooy charxa biñ ci doon andi pour taxaw taxaw taxaw foofu mooy suuf si bu yëngoo yëngoom nga bokk ci jëfi yowmal qiyaam yi muy azilzalul kabir yëngu bu xam ne day yëngu adduna bi maanaam suuf si yëpp yëngu ba la ci biiram lépp génnaat muy wane ne yowmal qiyaam taxaw na taxaw googu mu taxaw nag tëdd ga nit ña tëddoon ca biir ak ña deewoon dekki ga ñi dekki jaaxle nag ku nekk di laaj mhm. ku nekk di laaj lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew ba suuf commencé nag di wax yéen xeet sàngam yéen defoon nangam yéen xeet sàngam yen defoon nangam ndax comme que suuf si day yëngu ñaari yëngu ñëpp dee mu yënguwaat ñëpp dekki mu yoma taddifu raajifa tatbawaxa raadifa kon buy wax ci zilzal bii nag ba nit ñi di dekk ni mooy yëngu gu mujj gi yëngu gu mujj gi nga xam ne ci la nit ñi di génnee seen bàmmeel yi rafle ak yu ni mel ak yu ni mel ak yu ni mel ok yow ma izin ne keroog gis boobu nag yow ma izin keroog bis booba bisu yëngoom googa tuxaddisu axbaaraha tuxaddisu dafay waxe dafay xibaare xaddasa naas yu xaddisu naas dana xibaare nit ñi axbaaraha ay mbiram histoire yi jot a jaar ci kawam histoire yi nga xam ni histoire am la moom suuf te ni ñu jot koo def ci kawam aha gi yaakaar naa damir bu dellu suuf bu boobaa xeet wu nekk jot laa wax moom suuf mu jot laa wax la nga def ci kawam hada huwa al-amr lu tax suuf wax lu tax lu tax li tax nag muy wax ni te kenn mi newul suuf muy wax waaye bi anna rabbaka aw xaalaha yàllaa ko ko sant keroog jooja mu war a génnee information yu preuve ak seede yi wane ne seet sàngam ñoo defoon nangam diw sàngam moo defoon nangam ci kaw suuf loolu nag da koy def ci ndigal suñu borom bi anna rabbaka aw xaalaha salaamaaleykum tula xam naa loolu moom nekk tafsir bi ci côté boobu ndax am na yeneeni déggiñ ci côté problème géologie ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye damaa ne euh, tafsir bii daf bii rek lay jëmee mooy comme ni ko oustaz leerale li xam ni tafsir mu'tabara lay doon saxaaba yi indi woon ko euh, yeneen ak yeneen salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf euh, oustaz Soraqa waaw léegi fi may mujjee yow rek xam naa ni moom tey moom xawna la yàggal tuuti léegi maani waxyi fi alquran alkarim alquran wàllu waxyu ñëw na ci maanaa waxyu ñëw na ci ay yoon yoon léegi tuddal ma maani waxyu ci alquran ndax léegi junj nga nga ni bi adna rabbaka aw laha bi maana amaraha wala nga wax léegi indil ma maani waxyu في القرآن الكريم معاني باطو وحي دفع أي معاني بري لقي إندل ما يريب نك بين بجنجة إن مثال إن شاء الله ما يقول ما يكاد أسد زيجي أحمد ما تونتو مدوخ مجوبين بسم الله معاني الوحي في القرآن واو بكرة في لا جمي وحي نيونة القرآن في أي معاني كثيرة ومتعددة biñ ci njëkkoon indi sànq rek mooy bi saar bi nekk ci saar wi rek ñu wa awxaa rabbuka bi anna rabbuka awxaa laha mooy al waxyu bi maanaa al amr wala it am na waxyu fu muy ñëwee di teg irsaal comme inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ila nuuxin wa nabiyina min baadi loolu day fii irsaal Mhm. أها إنا أوحينا إليك دينين la yónni nañ yónni nañ yón yónnee nañ ci yow kama awxaynaa comme ni ñu yónnee woon Mhm. ok kon boobu dafa irsal maanaam irsal dana ñëw moom alwaxi bi maanaam ilqa sànni maanaam jox la dara wa uxiya ilaya hada alquran jox nañ ma ألقي إلي هذا القرآن إني ألقي إلي كتاب كريم كم ألقي سنة تاني مثلا وأوحي إلي أوكي دي يسنما جخسنما هذا القرآن كم يوم فهو سانك مراتب الوحي لك دون تك الإشارة أو حا الإشارة معنا جنج إشارة كم نغلان wa awxa ilayhimu an sabbixu mooy mooy sunu yonte ba yonte yàlla yonte papa yi papa yi papa yaxya zakariya ne awxa ilayhi an sabbixu bukratan wa asiya danañoo tekki ilham wa awxa rabbuka ila naxli awxa déey ah, jàngal ko loo xam ni day ñëw sànni ko ci xam Sane ci xel mi muy muy ñu fay discuter gaawaayu wax yu maanaam lu ñuy sànni sa wax lu ñuy sànni ci xel mi la ci fraction de seconde ñu dee la fi lu rëy rëy rëy rëy loo xam ne boo ko doon expliquer dina jël trente minutes beneen bi mën naa tekki ndigal al amr comme biñ njëkkee léegi bi anna rabbaka aw xeelaha waye dana ñëw mom wax yu nek al waswasa comme seytaane di def maam bu fekkee ne jugeewul ci jugeewul ci ku baax dila la digal lu baax rek lolu lolu lolu jax taxal la la la tudd yu bon la wa inna shayatin la yuhuna ok la yuhuna ila awliyaihim daga naa boobu ci la bok al wahyu dana ñëw na tekki lu ñu tuddee publicité maam yëgal yëgle mhm. maam yëgal goo xam ni nag yëgal goo ni mën naa am ngay nelaw ñu yëgal kaana li basharin an yukallimahu llahu waxyan aw min warai xijab comme al iha bil ilhami fil manam mën naa nekk ok yooyu daal xam naa ni bokk na ci yi nga xam ne danañ ko ci danañ ko ci indi ok oh ok comme fekkente ni ci ab yonent la jëm mën na nekk risaala bu fekkee ne ci nitu kese la jëm simple mën naa nekk ilham bu dee ku bon moo koy digal nit ki nag pour mu def la bon loolu waswasa lay tekki waaye naa ci tënkin bu gën a gàtt daal côté yooyu السلام عليكم كما يعتبر انك شن بن بيخ بيخ نمر مجنن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، جرجف شيخ آه، سراقه يا كما آه، كون جرو ميلاجو يموم لا وايا ملاحظه ما امرك ما شطون ما نام ساي تونت ليك ليك دنجي damay gis ay taradud lool ci maanaam ci tont bi nekkul tont boo xam dafay am talaaqa maanaam tontu bu ànd ak euh, fiqa maanaam sa ay tontu léeg-léeg ma gis muy ànd ak fiqa damay damay damay damay li may li may mulaaxada mooy boo tontoo booy tontu da nga ci da nga da nga tontu da ci yéex lool ci tontu bi mu mel ne xam nga loolu nga tuumaalu ma nag la ana laa attahimu ko tuumaalu ma la waaye ne waate bu fekkonte ni dañoo toog di waxtaan bu doon dañoo toog di waxtaan nii nga nga nga yor dara di liir xam naa liiroo xam naa liiroo li may wax nii du du du ñu da ngay da ngay xool de déedéet maanaam foog nga comprendre ma li may bëgg a wax buñ toogeen di waxtaan ma lay laaj loo xam ni xamoo ko lu dul nga liir ko boo yoree di liir noonu ngay waxe noonu ngay waxee noonu nga doon waxee man loolu nag nekkul ni da ngay liir wante damaa gis ni euh, fiqa bi mu waroon a am maanaam fiqa bi mu waroon a am ci wàllu tontu bi fiqa bi des na xam nga léeg-léeg nga wax daani waa loolu la yaakaar naa daani wa ah, li ma jàngoon wala boo da nga toog da nga toog lu yàgg wax ko ci waxin woo xam ni du ma ci du ci yëg ni wax la boo xam ni non seulement talaaxa mais fiqa bu ànd ak euh, maanaam lu wóor nga xam ni bu ma bu ma la waxoon du noonu attan ngaa ànd ak man man même bu ma doon bu ma doon napp ni du man maanaam façon wax noonu la woon loolu man am naa boobu mulaaxada ci ci ci li nga xam ne mooy mooy musaabaqa ala kulli xaal ñu ngi lay sant bu baax a baax macha allah jërëjëf maanaam góorgóorlu nga bu baax a baax macha allah jazakallahu xayran kon bu ko defee ñu seet ñu xool te ñoom lëj na bi lëj des nag dañ koy ixaala ci lëj na bi ñoom ñooy xool ñoom daan daan ñoom ñoom xarar nihaal yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy xam waaye man dama wax rek li nga xam ne moom laa mulaaxada ñoom après incha allah ñoom dinañ daje bu ko defee ñoom ñu xool wàllu darajaat yeeg yooyu moom dinañ xool incha allah ñu xool nan la ñuy tege suñ ay dara darajaat incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yaakaar naa de ustaz xam naa ma doon xam nga ma de kooku sama façon bindi la même su may wax ci li nga xam ne sax maa ko bindal sama bopp du ba jëfandikoo baatu baatu baatu jëf mu dogu ni lii la mais damay jëfandikoo baatu yaakaar naa de ah nangam la encore maazallah ah xam naa ne kay loolu moom nit sañu ko ci ndax dama toog di ko topp su ma ko su ma doon yotee di ko topp xam naa ni dana mel ne neen mais damay wax rek li nga xam ne moo teew ci sama xel te it gis mu amu ci te it ku xam ne sama façon waxi nit te daalik lu ci bari ku may topp di dégg sama façon waxi day dégg lu ci bari ma defe ni nàngam laa lay wax baat ma defe ni nàngam jooju nag tekkiwul ni damay taraddut ci li may def déedéet waaye damay bañ a ma xamul ma koy expliquer rek waaye daal ala kulli xaal loolu laa ci laa ci jub te it ñu ngi sant yàlla bu baax ci musaabaqa bi ni mu jàllee ak gis nañ ci bu baax a baax a baax ay njëriñ yi ci yokk bu baax a baax a baax yal na yàlla yokk tawfiq mais ñun noonu la ñuy doxee ci mais xam naa ni bu dee groupe bi tamit boo xoolee mbir mu ñu indi su may wax dama ah yaakaar naa ni nii la demee yaakaar naa boo demee téere sàngam ba nga fekk nangam ak nangam yaakaar naa su yaakaar naa ne ba ma koy romb ci téere sàngam de nii laa ko rombee maanaam loolu mën hëju waxin la ci ma nit di daw tout le temps dogu ci loo xam ni mën naa am na nga ko jàppee du noonu waaye ci biir débat ci biir waxtaan wi gis nga indi nañ ma waxin boo xam ni indi nga ko neen ma ni ah waaw kay kon la ma waxoon rek moom laa wax donte jël nañ ay note ci li nga wax naa ko xaar ndax tontu naa ko noonu ma koy tontu ba li ma xasa wax moom moom laay wax rek te it boo ma ci nappoon it dàq ko it la ma waxoon rek laay waxaat illa ma dem ba xam ni li wax nii du noonu ma do ko bàyyi te it su ma na ma ko waxee woon it dama naan la yaakaar naa nangam la rek baatu sama baatu yaakaar naa nangam jooju la nag du tara dul tashakku gis mu bu dëgër dëgër la yàlla defal leen tawfiq salaamaaleykum